والقلم وما يسطرون mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu këru liggéeyukaay bii di C3S compagnie Serigne Seck Sénégal moo ñëwaat ak yéen ci jongante mbindum alxuraan bi muy amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di dëppoog ñetteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind xët ci alxuraan bind sa tur ak sa sant sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci barabu C3S bi la gën a jege wala nga yóbbu ko ci fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi am na fa li bees ci édition ren bi mooy jigéen ñi dañu leen di beral seen concours bopp ak jongante bi ñuy amal ci région de Matam ngir doore fa jongante bi ñu namm amal ci gox yi at yi di ñëw ñett ñi jiitu ci concours national bi danañu am ay neexal yu ñu leen jagleel premier bi six millions deuxième bi cinq millions cinq cent troisième bi cinq millions bu dee ci jigéen ñi première bi un million cinq cent deuxième bi un million troisième bi cinq cent mille francs bu dee concours bay am ci région de Matam premier bi cinq cent mille francs deuxième bi mille francs troisième bi deux cent mille francs terewul nag ku bokk ci tànn bu njëkk ba dinga am ay neexal yu ñu la jagleel dépôt candidature bi dina door 1er janvier 2020 war a jeex 31 janvier 2020 ku ci bëgg yeneen di leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh بنعمة ربك بمجنون